mbokk internet yi safoo di seetaan info 221 te leen ak jàmm lu soxal diggante Ndeye Khady Ndiaye ak Adji Sarr ñoom nag ginnaaw ba ñu daje woon foofu la ci tribunal bu Dakar waroon janoog ak ki nga xam ne moom moo di euh, doyen des juges moom nag Adji saar dafa bàyyi rek ba nga xam ne ki ki di doyen des juges mu ngi diglu ki nga xam ne moom moo di Ndeye Khady Ndiaye moom Adji Sarr nag daal di yëkkati ab téléphone am di filmer ki nga xam ne moom moo di Ndeye Khady Ndiaye Adji Sarr nag la mu ca jublu woon moom moo di dañu ko daal di digaloon rek bu ki nga xam ne Ndeye Khady Ndiaye ñu ngi koy daal di interroger na yëkkati li nga xam ne rek moom moo di téléphone am ngir filmer ki nga xam ne moom moo di Ndeye Khady ngir bu changé li nga xam ne moom moo di version maanaam daal bu waxee li nga xam ne si nii bokkul ak la nga xam ne moom la waxoon ko daa mu a fësal nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi noonu rek moom ngeen gis si vidéo boobu nag ñi filmer ki nga xam ne Ndeye Khady moom mooy Ndeye Khady Ndiaye ka ko filmer nag di ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr na rek ñoom la ñu bëggoon daal di wuñu ko mujjee am benn bi yoon ndax ki nga xam ne moom moo di Ndeye Khady Ndiaye daal di yegul changé version benn yoon ma nga daal di taxaw rek fa mu taxawoon tey moo waral rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñoom Adji Sarr daal di wuñ mujjee am nga xam ni bëggoon nañ ko ci kaw Ndeye Khady